Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la conférence en vous, les. merci de louer du like, merci de louer d'abonner, merci également du bail, du commentaire, un plaisir au nouvel gars, chaque fois de partager une information, un bokeh sénégalais, il fait folle maintenant 14 régions du Sénégal, à nous on gueule ni l'un des gars du fela, ni n'est qu'il a l'hôpital et qu'il de fait bad gars, yal ne suis bonhomme fog, c'est une bonne nouvelle gamme, y'a n'y ramène également, rien n'est que ti, hein, ah, donc n'y ramène moi qui l'hôpital et tout, gars, il n'y a pas comme je le dis, n'y ramène aussi qu'à soit les n'y a erreur judiciaire, y'a blé, à guin l'une d'un fou, c'est une bonne gamme, n'y de do adnos, c'est une bonne khaled, à d'une fédosté, y'a on avance ensemble dans la magie de e-sport TV, Jamais, jamais, jamais dans l'histoire du football, hein, jamais dans l'histoire du football, un joueur africain am li nga accueil football jamais dans l'histoire j'ose le préciser encore une fois un joueur sénégalais am accueil bu ni Munich mais d'abord félicitations à nga Khalifa Diop qui a été drafté NBA à Cleveland à la 39e position le joueur sénégalais hein, donc équipe nationale U20 2 m 11 les mesures la future star hein, c'est le futur Hugo Gossidien de l'équipe nationale du Sénégal Cleveland mi nga xam ne LeBron James fa la jaafara ñoo ko ñoo ki woon drafté et pendant ce ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé moo nekkoon invité d'honneur bu draft bu NBA bi donc ñëw na le joueur français bi nga xam maintenant amna envergure internationale mais d'abord limay wax gay aussi moy encore suñu jigéen yi nga xam jox nañ len sen drapeau ñu wara a Sénégal ci Maroc ci coupe d'Afrique bi dañ leen jox gëdd dem ñom ñoo doon match amical Guinée Bissau 3 buts à 0 et je le dis encore une fois fédération ministère des sports pour une fois ma ma wax loolu hein bu leen ñu yap jox leen booy mayo yu yor jox leen moy moy yu doy également jox leen mayo yu bax ñu mën représenter Sénégal dignement euh, ki nga xam nag mooy Marie Antoinette Katoko gay yi nee nañ boo day des Paris Saint-Germain l'attaquant du Paris Saint-Germain nga xam ne Qatar bëgguñu ko bay benn yoon nga xam ne Paris Saint-Germain moom côté yor joueur moom koppar gi yor nañ ko et je pense qu'aujourd'hui on dit qu'elle va rester du côté du Paris Saint-Germain au lieu que muy dem Lyon qui est gis elle s'appelle Caputi mooy première première gay arbitre hein, ah, a xam arbitrer arbitré Italie en Serie A première jigéen buy arbitré en Serie A Caputi donc le tour de c'est son nom de famille gën ràññee ko di ko gis de won ci Série A muy arbitré pendant ce temps également le GOAT le meilleur joueur de l'histoire du football le nag waxuma ko Ballon d'Or yi ñoo tax ñuy wax ah. donc am ñu dañ nan non Cristiano ku am nga gis mais par rapport au Ballon d'Or c'est le meilleur joueur qui nga xamné moy donc Lionel Messi qui fête ses 35 ans joyeux anniversaire à lui pendant ce temps aussi ki nga xam Pep Guardiola moi mi au niveau de Barbade ah, les Barbades la nek mom ak soxnam ngeen guiss ko ni hein ah, moy sangu ci géej ni donc voilà donc ki ñu tuddee jamono ji l'un des meilleurs entraîneurs du monde ah, Pep Guardiola donc mi ngi en vacances avec sa femme au Barbade mais aussi gars yi gars yi ñu ngi attiser benn rumeur as mi ngi koy wax ne waaw ki nga moy donc Cristiano Ronaldo day dem Bayern Dominique mais aux dernières nouvelles comme je dis waxtaan ak Eric Ten Hag et Eric Ten Hag nee ko dama bëgg nga dess ci Manchester donc Cristiano va rester du niveau côté de Manchester pour l'instant. pour l'instant, ba am leneen luñ ci wax li ci des Dreamer. rumeur la bu ñu amee confirmation nañ leen ko jox pendant ce temps aussi nga am né moy no Brésil Seleção ñom ñu ngi wéy maintenant di nekk patron coupe du monde delluwaat nañ seen place premier au classement mondial ak Neymar bi nga xam ne ambition moy prouver que Paris Saint-Germain am fa place am bàyyi tiaxat gi mu nekkee Herrera mom tamit benen joueur Paris Paris Saint-Germain daal fi ñu leen wax rek am nañ problème gars yi dañ ñaan am nañ problème non Paris Saint-Germain am nañ beneen problème Herrera mom néna na fas yéene wul Paris Saint-Germain Néna mom projet bi ak joueur yi fa grand joueur yi fa nekk dafa bëgg évoluer sen biir donc Herrera aussi moom it nee na moom lànk ba tëdd suuf du jugé Paris Saint-Germain Fonseca ki gars mo dara nek euh, futur entraîneur bu euh, Lille mom nak actuellement commencé na nag defaraat staffam et tout donc déwén aussi championnat France gars yi quoi qu'on peut dire ñi ngi gën di dem championnat France niveau bi di gën de relever et je pense que c'est c'est bien pour la les les joueurs yi nga xamni ñi joueurs sénégalais yi fi évoluer aussi ñu koy année Matisse de Ligue Matisse de Ligue nak gars actuellement wa Juventus dañ ko bëgg prolonger mais ñi di wa Chelsea dañ ko bëgg jënd et actuellement option libératoire mom c'est entre 105 à 120 millions le défenseur hollandais Matisse de Ligue pendant ce temps Serge Gnabry mom ah ki nga xamne moy Serge Gnabry juin 2023, le contrat bi jeex ba signé goul Assane Salihamidzic nee na bu mu maintenant décision bi jour bi la appartenir donc ki nga xamne Serge Gnabry aussi mom Lewandowski fin de saison bi 2023 les contrat dire fofu mais gars encore une fois on va revenir ci li nga xam moy mooy Sadio Mané waxon nañ len ko Sadio Mané gars franchement merci au Bayern Dominique merci aux allemands franchement man li may wax rek allemand yi moom wax man allemand allemand là quoi 100% là parce que déjà lii gars yi ngay gis ko muy stade bi nga xam ne mooy bokk na si stade yi gën a mag ci àdduna wërgal këpp ci wàllum football ci wàllum histoire muy Allianz Arena ñu jël tour africain bind ko fi ba ay joueurs africains yeneen entraîneurs africains yoo xam ne ràññee nañ leen ah ay joueurs de de d'envergure mondiale di rafetlu li ni Sadio Mané ñu waron ko accueillir ci Allianz Arena bi lutax tax accueillir ko ci waxon na la ko na la ko wax le simple fait que moy dafa waron am match NFL NFL gars yi seetaan mooy donc moy match ngeen di gis di am football américain et tout mo waroon am ci Alliance Arena mo taxone amaluñ ko malheureusement li nga xamné ne euh, li di accueil bi sa Sadio Mané ci au niveau de Alliance Arena supporter yi ñëw loolu kese du leneen Sadio Mané bi nga xamné aujourd'hui gars yi tay Bayern Dominique wane na ne respecté na Sadio Mané et je pense qu'aujourd'hui liñ ko waxagum yëpp gis nako et je pense que liñ ne cin bu na a neex bu baxee xeeñ Sadio Mané aujourd'hui est devenu malen ko jox en exclusivité gis na gars yi après ñu koy reprendre comme on direct sur la famille et grâce à vous aussi. il est aujourd'hui devenu le joueur le mieux payé, le joueur africain le mieux payé devant Mohamed Salah. Ça, c'est grâce au Bayern de Munich. Sadiman aujourd'hui, faut tourner gars yi rek la wax entre gars yi une heure du matin ba 11h, démb rek la wax de waxuma la yeneen bis yi démb kese soixante hein, publication Bayern Dominique Munich def nako ci Sadio Mané sen Instagram Bayern Dominique Munich Brésil Bayern Dominique Munich France Bayern Dominique Munich Sénégal Bayern Dominique, Munich championnat yep dëkk yep gars fo xamné Bayern mi ngi fa rek def nañ li nga image pour woné né ñom un grand joueur d'envergure mondiale à la hauteur de ñom Messi ñom Ronaldo les accueillir le roi Sané bi papa nga Sénégal wax ne mom tay domam na jox Sadio Mané bi bu photo il est hyper content man sama aduna. li ci neex Bayern on a recruté l'un des meilleurs attaquants du monde bu ko monde évoluer ci patron Bayern Dominique et ngi préparer l'après Lewandowski tay Bayern na Lewandowski des ndax la dafa ñëw bëgg moom ak Sadio Mané ñu yor équipe bi gën mag gagner sinon bu fa Lewandowski jógee également Sadio Mané sera la fer de lance ci li nga xam moy Bayern Dominique fini nii gars du sama 11 ñu bari nañ ma wax ana Goreska Goreska amna place am fi mais ñi di Bayern ñoo nekkum comme di projeté wu dans le futur par rapport ak seen joueur parce que dañuy japp ne kii di Lewandowski day dem Ñabri day dem jël nañ Gravenberch également way ñëw mais Goreska da ci joué man gars équipe bu Bayern bi je l'ai dit encore une fois gars yi par rapport ak match yi nga xam ne Tay Bayern de Munich jouer Bayern de Munich en exclusivité le 30 juillet les jouer premier trophée muy super coupe d'Allemagne contre le RB Leipzig Sadio Mané Inch'Allah, allah souko dara il Sadio Mané aujourd'hui est devenu la richesse de l'Afrique, la richesse du monde entier gars donc aujourd'hui lan ngeen gis ci accueil bi Bayern defal Sadio Mané gars yi sen xalat, seen di like woy di abonné